ne Ndior waay. ay waay Idrissa Gana la waay. ma félicitation. ay mon ami waay. Barkal Barkal. barke yow Goror. ay waay dama la jëlaat. waaw. ah mais kontaan naa. ah mais kontaan naa xam naa nag ñu. ci ambiance bi. barke alxuraan sëriñ bu mag ñëw na ñu lay siyaar suñu sëriñ yow moom dañ lay topp di la suñu sëriñ bu mag la daal moom mu ñëw ba ñëw. yéen nag xamul lan jege sëñ bi kii. sagal na ma de sagal sagal na bàyyi ma sagal na ma sas na la. sas na ma de ay nguur dugal sa bopp. ay sas bi gis na. góor di nga wéet de ay nguur dugal sa bopp. dama dellu bëgg. boy xam nga ne ma ay ma ay moom nga leen ma daa amat ko dugal dem mënul wax de mënul wax de mënul wax de wallaay mënul wax mënul wax de mënul wax de mënul wax de wallaay mënul Voici la très belle femme de Doudou. kontaan naa ko. dëgg la de maa séeréer. sama wujje la waaye sama wujje la yor de. trompé trompé na maamam. bilaay. li ma def nii xanaa di ngeen di jàpp mu jox ma sax ko dënd. ñaareel ñaareel ñaareel deuxième femme deuxième femme. wala luñ ma sax. deuxième femme deuxième femme. Ousmane Bongo nee na mi ko teg ko daf lii damay fàttali sam benn copain bu muy mu jongoo sam benn copain bu mu jongoo mi fi fii taxaw nag du ma wax turam mu naan bul laal bul jege wuppal rek wuppal loolu nga may fàttali. non félicitations. merci merci merci beaucoup merci beaucoup sister di di di kontaan si seen teewaay waaw di wax alhamdulilah. tey jii ñu ci bëri ci sa xarit yi nee nañ da nga leen bett da nga bett sax askanu Sénégal parce que ñu bëri ñu na woon ci lii. waaw waaw xam nga xam nga xam nga tey moom duudu moom lu may wax rek am damay wax benn wax bu xam ne mais jàpp naa ne ni ci peut être duñ ci bàyyi xel quoi mais plus souvent fu may classé ak fu may nekk dafa dul nekk benn quoi. je pense que nit yi am nañ problème boobu avec ma personne quoi peut-être la personne bi ñuy gis sur TikTok euh, muy def ay affaire wala personnage bi joué chaque jour dañuy am problème ak personne bi mais chaque jour boo xoolee Doudou genre initiative bi muy jël c'est des initiatives sérieuses le plus souvent quoi Doudou rarement lay jël décision bi nga xam ne pour caaxaan peut-être nag soo ma gisee mais joué wala may def TikTok si caaxaan mais après pour pour pour ce qui est de mes décisions je que yu sérieuses rek laa mos a jël pour duudu di caaxaan di def man liñ koy gis bëriwul quoi waaw. c'est waaw mais xam nga après ñun balaa ñuy balaa ñuy nekk artiste wala quoi que ce soit ay doomu adama lañ teg si ay musulman lañ pare ñu am lu ñu gëm aussi te ñun bis à tout moment mën na arrêté mais suñu diggante ak suñu borom moo ñu gën a ñor donte nag am na affaire yu ñu dund ay affaire yu ñu vivre yi nga xam ne. tey jii du ñàkk nit ñi tappal ay mais comme je le dis il y a deux choses il y a le et l'être ñun xam nañ kañ la ñu doon kon bu ñuy xasi lu ñu njuróol du doon problème quoi mais en tout cas l'a fait parce que bëgg nañ ko ñu nekkal gis nañ ay qualité yi nga xam ne soxla nañ ko ci jigéen aussi doy nañu partagé na ak moment ay moment yi nga xam ne gëm naa ne jigéen du ko partagé ak man wala famille yu ko jigéen ki du nangu partagé ko ak man donc tey jii je me suis c'est par amour mais aussi pour rendre la monnaie de la pièce à cette fille là. waaw man pour avec ma famille c'est tout le temps facile ah parce que ma ma famille moom dañoo am confiance totale ci man quoi sama famille dañ ma wóolu et xam nañ ma nee naa la peut-être public bi ñoo ma xamul mais sama famille ñi ma xam lañ xam nañ ni bon. sama caaxaan ci ay théâtre la yam wala ay TikTok mais bu loolu jeexee loolu jeex na quoi donc man sama famille le plus souvent su ma jëlee décision dañ siy ànd ak man quoi mais di buñ koy def nekkul pour folklore lii yëpp xalaatuñu woon si sax dinañ fi ñëw wala dinañ ko yëgee boo gisee luñ defee nga xam ne defuñu dara mais dañ ko def parce que ay judd lañu toolu si takk jabar gis jigéen bu baax ñu def parce que dañoo ne góor moom boo gisee jigéen bu baax tu as tu as réussi de ta vie quoi. waaw man loolu laa dëkkeek ñoom nag loolu laa dëkkeek ñoom parce que bon récemment gis nga sax sama maison de production mu Ibac Ngor donc comme li may wax rek je prends des décisions sérieuses quand il s'agit de ma vie quoi et lii moom bokkul ci cadre professionnel kii sama soxna la man maa ko tànn bëgg ko protéger sàmm ko bëgguma ko lié ak ma vie professionnelle sincèrement quoi donc tey jii xalaatuñu woon ne di ngeen fi ñëw mais boo leen ñëwee aussi mënuñu def lu dul wax ak yéen parce que ñun ak yéen ñoo bokk lu ñuy def quoi. Euh, parce que dañuy gis en général célébrité yu bari euh, suñu def mariage dañuy def affiche yëgal ko partage ko discret lu tax nga jël choix boobu. waaw Doudou déggoo li ma peut-être mi ngi si gaa yi mais Doudou njuróowul ak gaa yi mais chaque jour su ma koy wax nit yi duñ si bàyyi xel quoi man amul lu may def pour folklore yàlla xam na ko maanaam sama moroom yi maanaam tey jii peut-être di nga gis ku ci am deux millions d'abonnés wala nga koy gis mu nekk spectacle bi spectacle bëre te loolu tëwuñu mais peut-être duudu moo dundul folklore quoi ñun on a toujours vécu dans la sobriété dans la simplicité aussi tey ku ñu xam loolu la ñuy seedal donc tey bon suñu borom mooy def nit lu muy doon woowuñu loolu xëccuñu loolu quoi ñun simplicité la dund ak nu ñu fexee bëggal suñu famille bëggal suñu waa kër nit ñi ñu bëgg quoi ñun si loolu kese la ñuy dox quoi waaw. kii nag sama soxna si mooy mooy maa ngi ko jële ba Espagne la ni nga koy gisee nii non dëggantaan bu waxee olof nga xam ne déggul olof comprendre nga donc samay xarit ñoo lay mën a wax donc xamante nañ depuis trois ans aussi donc nekkul Sénégal donc le plus souvent bu ñëwee vacances la ñuy def snap xam nga mais ñu gisante nag mu wan ma ay jikko vraiment yi nga xam ne du ma ne amul mais si sama classe gi nga gis jigéen bu lay muñal yenn yi du yomb donc tamit bu nekkee yow lu sérieux nga bëgg aussi da ngay def lu sérieux nga gaaw nga cadré sa bopp quoi waaw donc loolu moo tax yàlla wërsëgalee ñu lii chance la si man ma am jigéen bu mel nii waaw nag madame dama koy gaañ de <laughs> madame moom dama ko mën a dajji quoi moom moom moom mun naa koo tooñ mais mun naa ko reetaan loo quoi waaw mun naa ko tàngal xolam mais mun naa mun naa seddal xolam aussi quoi et je pense que loolu tamit loolu la ñëpp ñaan ko waaw. merci merci merci gars yi kontaan naa kontaan